Euh, euh, d'abord, effectivement, comme on l'a dit, mhm. pour qu'on puisse parler de cohabitation, il faudrait que l'opposition soit majoritaire. Oui, tout à fait. Euh... euh une bonne nouvelle, un salut pour la démocratie. Parce que est-ce que, est-ce que nous avons, parce que nous sommes mais est-ce que vous avons... Ah, d'abord, je vous dire après cette question-là, parce que tu l'as ignoré. D'abord, je deux, deux, deux, de deux constatations. Mhm. Euh, d'abord, aujourd'hui, dans l'opposition, amul une liste bu mën a nekk majoritaire loolu moom nañ ko xam ñàkk ñàkk jëriñu <laughs> ngi toog naa Macky Sall mënul nekk majoritaire ci élection yi hmm. waaw liste jàmm ak mënul nekk euh, liste takku wàllu hmm. mënu ko nekk liste sàmm sa kàddu mënu ko nekk ak yeneen liste yi ñu baal ma waaw ñu baal ma hmm. y a toute l'opposition réunie même avec majoritaire et moment-là, il faudrait que nous, d'abord ñu mën des mhm. pour que nous mën trouver un candidat consensuel au poste de premier ministre qui en définitive est nommé par décret du président de la République ça veut dire que les partis de l'opposition yi am majorité à l'Assemblée dañuy ont de trouver quelqu'un ñu war le président pour nous valider choix boobu mais dama gis li xew dernièrement en France mais la jàpp naa ni Sénégal le cas de figure Bob Amon. parce que on a vu Chirac nekk gouvernement euh, Mitterrand Nek, président de la République Chirac gagné Assemblée nationale mu que le premier ministre mais je pense que cette ère-là elle est révolue mm. au vu de li avec mm. Macron mm. ça leur a pris deux mois et quelques pour trouver un premier ministre consensuel et dama ni salaire boobu su amoon Sénégal boobu boobu mooy am boobu la ñuy jël parce que mooy loolu maintenant euh, leneen li ci des xaw ma mi ngi wax naan Amadou Ba moom mooy pièce bi manqué ci machine u Sénégal est-ce que Amadou Ba par exemple su su su cas de figure boobu amoon ñu tànn ko est-ce que dina nangu nekk premier ministre de Diomaye c'est une question boo xam te ne Amadou Ba moo ci mën répondre et peut-être ñoom mais mais aussi est-ce que est-ce que cohabitation mën na bi ñu connaître l'alternance ci la la preuve que nous avons une démocratie parce qu'une démocratie sans alternance ça naqaree une mm-hmm. xam donc nous expérimentons les les alternances mm-hmm. ce que notre démocratie ne nous a pas encore permis d'expérimenter c'est la cohabitation mm-hmm. et ça fait que ama am solo ci démocratie parce que cohabitation Bel niveau de consensus là, recherche supérieure de consensus donc muy Ben, Mohamed, pour ce serait salutaire que suñu démocratie d'un ah, maintenant dans le contexte d'aujourd'hui fi depuis il y a trois mois ça fait plus d'un mois que je n'en parle plus parce que les choses ñi ngi nekkoon ci lii ma dafa démissionner de son poste de président de la République que même si fekkee dañuy def élection législative ñu couplé le élections élection présidentielle ki nga xamante mo nek ci xolu sénégalais yi moom la ñu ñu ko président de la république après lu ko neex mu def y yag na ko wax mais pour cette même cohérence aujourd'hui parce que Diomaye président de Ousmane Sonko premier ministre non seulement c'est risqué pour le Sénégal mm-hmm. mais ça met le président de la République très très très mal à l'aise dans l'assumation de ses prérogatives à ce propos pour moi ma dégg Amadou Ba wax naa léegi son discours et sa tempérance ak yooyu mais dafa wax benn wax bu am solo dafa ne moom su sañoon suñ génnee ci élection yi toute la classe politique dañuy déggoo ñu voter d'urgence le budget sans débat dëkk bi dox mhm. suñ demee ba ba waaw waaw suñ ci génnee mhm. rek nañ voter le budget parce que dëkk bi dafa war a dox warul taxaw sans débat nag ñi nekk assemblée noonu la ñuy def mhm. léegi suñ demee ba génn ci loolu ba génn ci yooyu yëpp ñu oowaat nag léegi le gouvernement ñu ñëw défendre le budget après dañuy def loi de finance rectificative ci li nga xamante ne dañ ko war a soppari ñi mais loolu noonu dafay dafay dalal xelu kuy xalaat cohabitation et ma jàpp ni suñ bëggee am premier ministre boo xamante ne dafay jàppale président de la république ci liñ ko sant pour man formule boobu mooy bi gën parce que Ousmane Sonko Diomaye doxul te soo seetloo temps yi sur les réseaux sociaux gis naa Pape Moussa démb mm-hmm. gis nañ ko sax xam naa vous avez vu la vidéo muy ne Diomaye su tàqalikoo ak Ousmane Sonko haute trahison la xam naa Pape Moussa dafa jum dafa jum parce que dafa jaawale deux matières différentes dafa jaawale la matière électorale ak la matière boobu après dama bëgg dafa jaawale la matière électorale parce que dafa ne vote bu ñuy voté moom Diomaye Sonko la voté c'est pas vrai dafa voté Diomaye moo xam nag ku ko digal xëy na soo ko digal wala conscience am wala lu mënti doon mais Diomaye la euh, bulletin bi Sonko nekk ci donc c'est ça c'est la matière électorale constitution mom loxo tek mom kenn porter prérogative yi nga mom mom constitution donc mais non xam nga la ma problème dina situation bu compliquée mhm. parce que la légitimité populaire en tout cas sous élections absolument pas absolument pas hmm. man je sur l'état waaw mais si yow rek sur l'état kay comme nee nga Diomaye. mais la légitimité fan la koy jëlee. waaw waaw mais la légitimité fan la koy jëlee. peuple bi waaw peuple bi ci naka. mais parce que pour le vote le vote xam nga ñun. quand on fait l'analyse dañuy interpréter. non non je ne suis pas non. tu peux ne pas être d'accord. mais man mes propos. li may wax dama ne. xam naa ban cohérence la ak fi ma ko teg caawalee matière électorale loolu dama ne peuple su ñuy analyser le sens du vote. dama ne mën naa la génneel ay ñoo xamante ne des militants vraiment doy waar ci Ousmane Sonko dañuy wax ni Sonko Jomaay lañ la non Jomaay Sonko lañ la rusee. Mhm. cest à que donc problème su amee. Jomaay mhm. légitimité bi moom dafay màbb. nee naa élection yi enjeu yi bokk na ci parce que Ousmane Sonko s'il ne fait pas autant que Jomaay. yaa ngi dëggal li papa bu Khadi wax. absolument pas nee naa la matière yi bokkul la. Mhm. dafa ne moom bi dafa ne Jomaay su taxal ko Sonko haute trahison la mënul ne.

loolu rek moo tax ma jàpp ni cohabitation aujourd'hui moom mooy sariwu Sénégal. Sénégal d'accord Pape Demba ci ci côté boobu ñu mën ñu mën a tëj parce que temps bi xoj nañu. man déjà pour même su amoon cohabitation damay xool. Euh, mujj bi maanaam ay après cohabitation yi après parce que booy xool suñu constitution nu mu tëggee dafa leer daf ne. Mhm.